ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew wala bitim réew. ñëwoon seet ba tey mbokk internet Farokh bi ñu ngi si njabootu Sidi El Hadj Omar Ndao ñu bëgg a jox suñu yaay Ndeye Ndao kàddu gi sànni ñu si tuuti salaamaaleykum. Cissé waaga alhamdulilah eh, booy dañoo bëggoon nga sànnil ñu tuuti kàddu rek ci mawlid rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam de sant yàlla ba mu di sant bu di sant suñu maam alaajo di sant mboolem taalibe yi fi nekk ak yéen seen doom yi ndax gi ba dara dafa yàgg na te xalifa ba léegi mu ngay gàmm gi nag ñu ngi ñaan yàlla yokkute sant yàlla ba mu bëri ñaan yokku ak yokkute si ñaan daal yal na yàlla barkeel ñëw suñu doom yi le yal na yàlla barkeel gi ku fi ñëw yal na ko teewee si barke alxuraan sant nañ alaaja ya man ndaw am rasulullaay moom la bëgg moom la xam la def lépp lu am rasulullaay moo jara lépp lu ma am la ko tuddee moo tax lu bokk ci moom da nga bëgg kon nag ñu ngi sant kontaan di ñaan yàlla yal nañu ko teewee déwén jërëjëf Cissé. Ndaw mbokku internet Farokh TV ba tey ñu ngi ak njabootu Sidi El Hadji Omar Ndaw ñu ngi taw kenn taxaw kenn ci suñu yaay li ñu nuyu ko rek mu sànni ñu tuuti kàddu ci Mawlid Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lay fay maa alhamdulilah asalaamaaleykum maa ngi nuyu di sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sama ñaari waajur di kontaan ci bés bi ndax gàmm moom ah dafa war julli bu ne suñu maam da koy màggaar mu jot suñu maam wàcc ne suñu suñu xalifa mu taxaa moo ci nekkoon ku ko wàcc na xalifa Basir moo ci demoon te ñu koy ñaanal mu yàgg lool tamit waaw ah, gàmm gi moom sant yàlla ba mu bëri suñu bokk yëpp ñëw nañ bokk taalibe ñëw nañ suñuy bokk yëpp ñoo ne kontaan nañ loolu bis bi waaw. baax na soxna si ndaw jërëjëf. ok maa ngi leen di sant yàlla rek julli ci yonent bi sant sëñ bi parce que naa toog ci gàmm gi ba rek dellu ci kër waqar faaraqarro ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew